mbokki internet di dalee nag jàmm Balla Gaye 2 annoncé à l'INSEP de Paris ci wàllu préparation combat bi ñuy xaar 30 juillet 2023 diggante mag Eumeu Sène gannaaw défaite bu mu jëlee ci diggante mag Boy Niang numéro 2 ak laqatu gu mu laqatu gu yàgg kenn déggul ko fenn gisul ko fenn moom ñu di Balla Gaye numéro 2 nag njortes nañu ne mu ngay waaj dem fële sa INSEP bu Paris ngir mën faa waajal lambam joor dox ci diggante mag Eumeu Sène sunu lamb la ñuy wutali bu ñu jógee ci record yenn kaay moomee sunu lamb ñëw ci ci combat yor dox ci diggante Sathies ak Reug Reug waaye laata doole moom nag wax na ci ki nga xam ne moo di dóor dooraat sos sosaat nam ñam ñamaat moom sos mi ne nag na fee prix le sow moom sos xam ngeen ne jàgg na génn lool nit ñi di ko dégg di ko tudd ci làmb nañu ko daan tuddee ko sos sosaat ak dóor dóoraat waaye nag jàppale ne fi mu toll nii dat mënees na koo xaaraat ci làmb ji jàppale na ba tey moom suñu làmb ñëw na ci soxla de mi prévenir qu'il di nag naan ko je vais rapidement la euh, terrasser mais ni ko koy dànkaafu nag moom Sokh de nee daal ci lu gaaw lay daan adversaire am nga xamante ni moo di euh, Fils de euh, Katy bu ba tey ci sunu lamb la ñuy des yéen mbokk yi mu ñëw ci combat nag de feu entre ki nga xam ne mooy di Karak et le Dragon Rouge et Bébé Diène ak kii la di Tonnerre Démarché jàppale na lamb jooju nag am na ay promoteurs yoo xamante ni ñu ngi cay wax mu war a dox ci diggante Bébé Diène ak Tonnerre loolu nag ay promoteurs ñu ngi cay dox yi tànk ngir jéem a taxawal lamb ji ñu mel nag ñu koy duppee combat de feu entre le Karak et Dragon Lion Rouge ba tey jàppale na nag Al Baraka Kairé ak ki nga xam ne moo di Mbengue Mor élu euh, fils de Falaye général de combat scellé par Fouta Production pour le 21 mai nag 21 mai ci la ñuy xaar combat yooyu ñu limal leen euh, léegi mu di Al Baraka Kairé ak ki nga xam ne moo di Mbengue Mor ki la di élu fils de euh, Falaye ak ki général de Max Mbergane coach Boy ña Boy Sadio nag moom neen son combat contre Baptiste 2 nous tient à Max Mbergane nag mooy iti kàddu yooyu di wax na daat combat war a dox ci digganteem ak ki nga xam ne moo di Batiste 2 wala sax ki nga xamante ni moo di Boy Sadio ak Batiste 2 combat bu nga xamante ni ah, bu leen yittee la loola Sa Thiès ak Reug Reug Zallo nag bi la nag nga xam ne moo nekk ab soog bu ñuy xaar 5 mars bi la ñu nee na Reug Reug ne doit point ne doit point saisir son ngemb nee na daat mu ngi dànkaab Sa Thiès bu baax a baax bu benn bu mu nangu benn yoon kii la di Reug Reug daal di dugal loxoom di jàpp ca ngembam nee na logiquement Reug Reug est moom nag jàpp na ne moom Zallo nag Reug rek mooy favori ci combat bi la ñu mel attention à la force et à la vivacité de Sa Thiès nañu dax bu baax a baax def ndànk def attention moytu nag force doole ji nga xamante ne ak rapidité vivacité moom mel di Sa Thiès am na ko nee na peu probable que ça termine a la a nee na nag moom séentul benn yoon lamb ji ñu mel diggante Reug Reug ak Sa Thiès muy daal di jeexee ci xeex ndax ñaari mbër li nga xamante ni donte day xeex mënees na ko xaar seen diggante sax nga xam ne kenn ku ci nekk dañ laa xamee mbërum ngemb moom nag jàpp na ne daal bu buñ tegee mbir mi ci yoon rek na mu ko gisee kii di rëg-rëg mooy favori na Sa Thiès moytu bu baax a baax rëg-rëg di def loxoom ci ngémbam waaye moom ni dak di rëg na moytu bu baax a baax baax kii di Sa Thiès force ak vivacité am nekk na daal lu nga xam ne mën naa jeexal lamb moom tamit lamb ji nag ñu ngi koy xaar le 5 mars bi ñu dëgmal fële ci arène nationale ca la ñuy xamee fan la wanatu di bu njëkki gëtëm diggante rëg-rëg ak Sa Thiès mbokki laata loo de wala di like wala di